Thank you. champion borom INSEPS jaar naa la jaar naa la jaar naa la Bay Fall champion

INSEPS naka INSEPS jaar naa lu bëri bëri naka INSEPS le lion de Guédiawaye arrivé au Dakar Préparation de combat contre Tapha Tine. Alamu dama ci yow rek aja boobu bàyyi moom ah ah aja mbër baaxul lumière sama sam yow aja mbër jaay loxo yi. yaa wóor. foo nekk nii. waaw. Abdou mu ngi fee. non maa ngi yow foo taxawee nii. deuxième fois. mais Mbari yow gars yi dañ laa namoon de. deuxième porte laa nga nekkee. fii la. acca Mbari. champion. champion. ok gis ngeen Balla Gaye noonu arrivé na Sénégal demoon na France préparé ji combat contre moom ak Tapha Tine gis ngeen ko mu ngi noonu wàcc na aéroport international Blaise Diagne bu Dakar ñëw Sénégal da ngeen jëf internet yu Dakar Live xam ngeen ne Balla Gaye numéro 2 mi ngi nii. champion. ok xam ngeen Balla Gaye gis ngeen jëf internet yu Dakar live xam ngeen ne Balla Gaye numéro 2 mi ngi nii egsi na Sénégal France la demoon INSEPS préparé ji kombam contre moom ak Tapha gis ngeen ko le Lion de Guédiawaye ñëw na forme bi ñu gis ci moom nag macha allah. gis nañ ne liggéey woon na forme bi ñu gis ci moom macha allah ah xam na ne am na komba ndax contre Tapha Tine du yomb am na làmb bu see ngi ni am na làmb ndax ku ne xam na ne mook Tapha du yomb moo tax Serigne mais ci loo booy. maa ngi nii rek naka waar. yaa ngi cool waaw maa ngi ci lu gis mbër arrivé Sénégal. waaw jeex na ñëw na incha allah. Mhm. lu waaye doon jaay léegi mu lamb. Ah. waaw bi yoon soxlawuñu wax ju bari. ndax lan confirmation la rek ak jëf. waa ji nee na moxoñe la leen di def baatu moxoñe moo ma jaaxal. waaw Aziz. Aziz non Omar a ci beneen oto bi man maa ngi nii di ko dem jël bu fekkee ñi ñoo ko song moo tax bagage mi laay dugal ci oto bi nii. ni ngeen ko gisee Balla Gaye 2 le lion de doomi Double Less ji egsi na Sénégal arrivé aéroport international de Blaise Diagne ah jóge na INSEP si ñëw na <laughs> waa ci communication <laughs> non xam nga ketchup yooyu lay def moom mais loolu rek ñu mais Bousse Bousse taxawal tax nga nax sénégalais danga da communication complètement bii yoon gars yi jàpp ne sax da ngeen a réeroo. waaw ah, mais noonu la ah. Ah. mais Tapha gis ngeen ko nee na Moxoñe baatu Moxoñe moo jaaxal senegal gépp dañ ko koo dee pour mu wax ko mënu ko wax sax mënu ko wax bi eh, est-ce que nit ñi demuñ ba xam ne yow yaay buntu Balla ku bëgg a jot Balla ci yow lay jaar. moo waral Boucher nga nëbbatu sa bopp ci Balla waaw dinaa dinaa gën a nëbbatu nag ah. waaw lamb ji sax du ma ci fekk la fu ne nii tey jii bu lu paar ne tey moo dem Amérique toog fa lamb Balla gi sax du ma fekk li tax loolu waaw dem lan moo tax nga jël décision boobu. dara ah, loolu laa bëgg. li la xam ni nga mel ci Balla Gaye ay bisam ni nga ci daan def. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. Alaaji Mbaye maa daan <laughs> maa daan ba lee euh, waxal keneen. Ah, ni nga mel ci moom yéen ñaar Sénégal gépp xam la nga bëgg a reculer ci kombaam ngir bañ ñu jaar ci yow. loolu non garaaw non garaaw affaire la mbir la. ngeen di waaj allah ñu ngi nii gis nga ko tànk yi gis nga ni mu rinkee. waaw nañ dem nañ dem kër ga nañ dem jël leen seen oto ñu dem kër ga. ñu dem kër ga waaw nañ dem nañ dem.

bëri ziar naa la <laughs> yaa ngi jaaw naka INSEP naka INSEP ziar naa la bëri bëri naka le lion de Guédiawaye arrivé au Dakar préparation de combat contre Tapha Tine

champion da leen topp de champion yow rek la ñuy topp ok xam ngeen Balla Gaye noonu ay jeune Sénégal demoon na France préparé ji combat contre moom ak Tapha Tine gis ngeen wàcc na aéroport international Blaise Diagne bu Dakar ñëw Sénégal da ngeen jëf mi ngi nii